di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol njiital réew mi président de la république Macky Sall di la daral jàmm ci turu sëriñ bi yaa ngi mboolem ñi nga ñëpp te ci tuddee soxna Mariam Faye ñi nga xam ne doom la ci sëriñ bi di léppam di ko am cofeel ci moom di di ci teg ministère de l'intérieur bi nga xam ne moo doon taxawu liggéey bu gi ñu di la seere lay taxawaayam ci màggal gi kon sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm rawatina kàddu yi nga xam ne bii rek fetliwaat lu ma nee naa la ko wax ci bis bu tedd bii nga xam ne ci lañ jub si muy màggal Tuubaa muy màggal gi nga xam ne ci la fi sëriñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dem liggéey la aw xeetam muy liggéey boo xam ne ba muy dem yaakaar yàlla ak bëgg xeet li bindeef yi ak bëgg am daraje Abdullahi wa Xaadimu Rasuul rekk taxoon ba muy dem itam mu jaayante boroom akuk dogg akuk ngëm ne astaxlisu li nafsi lépp maa koy jagoo bokkuma ko kenn àndut kenn kenn kenn wéttiliwu ko mu ne ci condition yu metti ba yàlla suñ borom def liggéey bu mat ba liggéey bu matee nag suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na ak pay ci des ba àddina di tukki itam saa su bis bu jël si waatee gépp may goo xam ne suñu borom mayoon na la ko dana dana ko dolliwaat ba mu tollaat noonu moo wax ne moo tax ba mu nekkee ci tukki bi la wax ne ij'alu juu'i ila qawmi saadatana wal takshina yowma jam'il xalqi niirana waxee tam ne lii aw silil la si uridu wan faay biyal wara yaa mu wax ni yéen amit faay kon mooy xéewal li nga xam ne suñ borom wàcce na ko senegal tey waxaat itam wax ne lii kun bikun sarmadan wajal masiri sa jaw fal fara lil wara mislal kon nag yàlla suñu borom defee màggal googu jur ko màggal mu dem ba adduna sépp di ko wusi ba ren ji liñ ci xam ci ay délégation yoo xam ne bàyyi ko nañ biti réew ëpp na ñaar fukki réew du yi kon nag loolu ñaan gu nangu rek ko indi kon nag ñaan gu nangu rek mooy li am fii kon nag ñu ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd di jeexale kàddu yi rek nag ndax du gudd ci cant gi nga xam ne yóbbante na ma ko ci président mooy cant yoo xam ne sëriñ bi ci biir xorom la ko tibbi ngir ànd bu rafet bi nga xam ne ànd nga ko sa digg moom ak jëflante bu rafet bi nga xam ne def nga ko sa digg moom ñaan la ci jiitu it mooy lim lay sant la yàlla mooy jikko ju baax ji la yàlla defal ndax nee na jikko ju baax mooy nungu dëgg neen te loolu gis na loolu ci yow ñaan na bokk na ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne def nga ko ngir indi jàmm ci Sénégal ak indi jàmm ci réew yi mooy lii nga xam ne suñ borom defal la ko te li gën a jafe ci àdduna nag mooy dugg ci nguur ci jàmm génn ci jàmm ak ndam nee na lii nga def nag na nga xam ne yëkkati gu rëy dala jural ci àdduna si yëkkati gu rëy dala jural si digg Sénégal nee na nag moom yàlla boole na la moom boole goo xam nam la ko daa waxee rek kóllëre gi mu fasante yow du tey rek du nguur itam ñaanal li fii mu ngi ci kaw suuf rek kóllëre gi saa soo xëyee di yokk waaye du wàññi ko ñaanal loola nag lépp lu yaa ko jëmbat ci sa digg ak moom ndax fonk koo ko fonk jàpp koo ko jàpp def koo ko def kilifa néew na weer dugg ba jeex te yónniwuma ci yow ay yitte te lépp njaboot gi la te yitte yoo ci dégg dañ ci def ba def ci loo mën loola nag démb rekk ci mujj loo xam ne neexut a wax ci mbooloo waaye waxtu ne yaa ngi seetu bëggam du ko dàkk loo jàpp ne mbégteem rek da def ko nee na loolu nag mu ngi la koy seere di la sant di la xamal ne itam nag Sëriñ Tuubaa am na lu mu waxoon daa bindoon wax ne anna man waasala nii laa li xararin dunyawiin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa anna man waasala nii li dunia faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne ñëw nga ci man te àllaaxira kese tax laa jug yàlla suñ borom daan la boole ci njëkk gën a jege tépp ku ñëw te àdduna tax laa jug itam nee na sa diiru dund yàlla suñ borom daan la ko terale kon nag koo xam ne ñëw nga ci Sëñ Tuubaa yaakaar ko àdduna ak na sam xel daal tax da nga xam ne sa giiru dund rek yàlla dinaa la kon nag sëriñ bi waxoon na la ma toog melaan li ci sa kanam mooy dàqali ci sa ginnaaw kon nag loolu wax ba loo koy wax bu waxee yëg-yëg la kon na sam xel daal di la sant itam nag ci li nga def ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi te lépp ma ci seere ci kanamam loo xam ne lu ma xam na muy lu wér ndax am nga fi fukki at ak ci ren waaye jëf nga fi jëf ju bari joo xam ne ku ko limoon tey dana ci bari sax lu ma fàtte waaye bokk na ci assainissement bi fukki at ak ñaar def nga ci lu mat ñeent fukki milliards yi juróom loolu jéggi fu rëy la kon loolu day mel ne bu demaatee ay at rek assainissement gàllankoor yi ci dëkk bi dana jeex loola itam def nga ci taxawaay def ci yitte def ci jom ndax assainissement day liggéey boo xam loo ci def weesu ko dañu fàtte ko waaye loolu lépp sëriñ bi gis na ko bu dee ci wàllu ndox mi li mu ci def ci ay forage ci biir dëkk Touba mën na fukki forage ak juróom-ñett loolu liggéey bu rëy la bokkut ak nag tëli yi nga xam ne def nga ko fi muy tëli yu bari bi ci mujj mooy bi corniche bi ñu tuddee 30 mètres bi ëpp na fukki milliards bokk na ci it projet yu mag yi nga xam ne def nga ko fi ci jiitu mooy Ila Touba bi nga xam ne mën nañ ñeent téeméer bi daal di liggéey bu rëy bokk ci sa projet yi gën a mag ci Sénégal ba ca dolli kuwaat mooy hôpital Cheikhul Khadim bi nga xam ne daal jéeg lañ ko indi gërëm moom itam nga def ci xaalis bu bëri ak la def ca mat la bu faw sañu ba ca mujj nag te gën a ñor sëriñ bi bii ci guddi waxaat na ma naa la ko fat mooy liggéey université bi ndax université bi sëriñ bi ba mu accès dafa wax ne sama yitte jëpp maa ngi ko ci jëmale ngir jàngal ndaw ñi xamal leen ak toqi ba mu ko yëkkatee rek yéene jëm ci njëkkooram man mii nga yóndoon ci moom ne ma bu ma soñoon moo bàyyi ma tabaxal ko lépp ndax xam naa fi mu toll ci moom te état mën na ko ci ñetti at wala ñeent ba ma ko waxee sëriñ bi sëñ bi wax la na mu ko gisee ne bu ma soñoon taalibe yi nga bàyyi ñu jëf ci waaye fa saasa nga ne lépp lu jëm ci tëli assainissement éclairage fi lépp yaa ko ba loola ña ngi ci liggéey ba sori na yemaatoo ci nag jëf jën ko ci mujj jëfal mooy bi université bi àggee sëriñ bi moom xam nga ne la sëriñ waa waxoon rek katabtu fil bahri anni laa amudu yadi ila nasara abidil maai wa tini moom noonu lay doxee du la du sas kenn du laaj kenn mu yëkkati lu ma juróom benn téeméeri million dugal ko ci biir université bi ngir dund gone yi ba nga ko yëgee yëg diisaa bi nga ne ko loolu kenn waru ko teg fas naa yéen ma ne ci sama war goru nguur danaa fexe ba def ci biir si bi situation yi nga xam ne ñu ngi koy def université bi ñu boole ko ci loola nag muy jëf joxoon danga ko caa gàttandu ba nga ko ko defalee lam la wax mooy loola Sëñ Tuubaa ma sa defal rek ngir dana la ci beraatal sa genn payu bopp kon nag na sam xel dal mu dugal ci lu mat un milliard ci université bi ngir dundu gone yi ak di leen jor mooy situation boobu def na ko ci loolu bi ñu tàmbali liggéey bi rek lam ci jëkk def mooy yëkkati un def ko ci liggéey université bi noonu loo ko defoon ci Masaalikul Jinaan te ñu bëri yëguñ ko lu ci ne mu koy jëf daa wax sëñ bi ne ko Mansoor maa yow yàllaa ko ko diggaa rek sëñ bi nga bi ne kon lu mujj lii nee na la loolu ma sa defar sëñ Tuubaa li nga koy defaat daan la ci beraata sa genn poy bopp kon nag na sama xel dal mu wóor ma ne keroog wax na ma ci guyét ne ma dénk ga ma ko dénkoon sëñ Tuubaa wóor na ma ne moo ko may mujj bu rafet gi kon nag loolu na nga xam daan la topp ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf lii doy naa dégg de jërëjëf Mbacke amin amin Mbacke wallaay lii kenn